tey ci 18 décembre bis bi nga xam ne ñu ngi ko sargal immigré yi waaw 18 décembre bi nag dafa am une particularité euh, loo xam ni man ma bëggoon ci aussi euh, ñaax ci àddina bi ñu bañ a def erreur parce que 18 euh, décembre bi tey dafa marqué par cette crise migratoire bi am tey au large des côtes libyennes une crise migratoire boo xam ni dafa généré Euh, toute une économie criminelle et gestation moo indi njaay jaam bi nga xam ni soo xoolee foofu la ñu bëgg a dévier débat bi pour fuir les responsabilités boo xoolee te lii yëpp journaliste yi fi nekk xam nañu gis naa fi ñoo xam ne bëgguma sax bëgg tur parce que kenn ci yéen ñëpp invité na ma ci plateau boo xam ne nous avons eu à dénoncer ça depuis plus de quatre ans cinq ans les archives sont là sur Google dara du ci fenn mais il a fallu que CNN rek xëy wax ni esclavagisme rek àddina bi yëpp on oriente le débat vers la traite des esclaves loolu mooy première erreur loolu am na mais lan moo indi loolu quelle la cause de la cause loolu tamit lu jar xoolaat la ba tax na tey pour fuir le débat ñu ngi wax ay naar ay arab ñooy jaay ay nit ñu ñuul en Libye débat bi yëpp ñu campé ko foofu ba nga xam ni léegi les occidentaux nga xam ni ils ont une grande part de responsabilité l'Europe particulièrement la France parce que ñoom ñoo créé lépp le désordre institutionnel lan moo indi xeex bi am leen moo am ba li bi am ni tey jii ñu daf fi ay sommet yoo xam ni mën naa wax ni cinéma la woon les états africains yoo xam ni dañoo daw seen responsabilité tey on oriente le débat vers l'esclavagisme li ko indi nag tey il faut que ñu rétablir le lien causal et linéaire de la gestion triptyque immigration paix et sécurité bi nga xam ni tey moom moo jur toute une économie souterraine et criminelle en gestation bi nga xam ni je rappelle entre en 1960 euh, 2016 cette économie criminelle a géré a généré 10 milliards d'euros ci àddina bi 10 milliards d'euros tey économie criminelle boobu moo charrié le trafic d'êtres humains le trafic d'armes le trafic d'organes tuddooguñ ko dana ci am cadavre fu ñu dugg ñu dee kenn gisu leen la traite bi ñuy wax ni tey et la violence faite aux femmes et aux enfants loolu moo indi loolu moo indi tey cette économie criminelle là ba nga xam ni tey euh, moo jur li kii nii donc suñu biaisé débat bi rek dañuy orienté lutte bi faneen bu boobaa y aura aucune perspective de solution la solution mooy lan que ñu xoolaat seen bopp tey doomu aadama dafa foor il se pose des problématiques de mobilité de ces personnes là ñi nga xam ne ñu ngi daw ndóol dëkk bu mel ni Sénégal la migration et économique ñi nga xam ni tamit dañuy daw làqutu ñi nga xam ni leur mob le le mobile de leur migration est dû à des persécutions systématiques ou des guerres parce que continent bi yëpp ay xeex la kon loolu moom mooy débat bi dëkk bu mel ni euh, euh, kuréel bu mel ni les Nations Unies mu jël ay matuwaayam xoolaat ay luwaayam régler les problèmes de mobilité parce que tant que amul des solutions globales adaptées à la situation de ces gens-là du am solution tey jii il faut que ñu xoola d'autres perspectives il faut que ñu changer de paradigme lan moo indi lii ñu bañ a biaiser débat bi lan moo indi tey ñu ñi di dugg ci géej gi lan moo dugg tey ñuy dee ba ñu leen di jàpp loolu moo indi parce que tamit de rappel que la Libye dafa nekk rek victime tout comme les migrants parce que Libye dafa am désordre institutionnel l'état de droit n'existe pas maintenant les les les les les milices les bandes armées yooyu yëpp dañ ci profito puisque les migrants sont là sont en transit il y a de migrants en transit des milliers de migrants ñu profité ci ñooñu pour raqueter leen jàpp leen wut ci ñoom xaalis lii moo indi situation bi lii moo indi cette situation d'esclavagisme en Europe en Libye mais lan moo koy les responsabilités dañ ko génne l'Europe est responsable parce que dafa xëy tëj frontière am teg des amalgames islam migration islam terrorisme ñii le suñ duggee c'est un danger pour yéen donc avec les discours populistes la pression les ratés de la mondialisation l'Europe s'érige en forteresse dëkk yu mel ni France ñoom ñoo créé cet amalgame islam migration du fait de l'échec des politiques d'intégration yu am ñoom seen dëkk parce que la France dafa am un statut particulier ñeenti français yoo jël kenn ki maamam gan la mu am ñooñu kenn boolewu leen ci dara ñooñu fippu li seen maam yi d'accordoon ak li seen baay yi ñu bañ ko fippu mu indi ay xeex c'est l'échec des politiques d'intégration moo tax François Hollande wax leneen ko léegi nag. pour nous internationaliser ce débat-là ñu créer des concepts au nom de l'islam donc l'islam est accusé l'islam est mis au banc des accusés par une laïcité juridico-politique entretenue par des pays dont la France mu indi lii yëpp coow li ba nga xam ni tey ñoom ñu poussé Europe boo xoolee fu coow am ci dëkk wala attentat rek balaa dara am les médias français tëb nañ ne terrorisme su ko jullit dafee su ko jullit daful nag non c'est un détraqué dafa am dépression ñu bàyyi noonu musul am na benn sénégalais bu ñu fi reyoon keroog nee na mujjul fen parce que ki ko rey nee nañu tubaab la comme tubaab la dafa amoon dépression du mujj fenn donc yooyu yëpp tey jii yooyu yëpp tey jii dafa war nekk l'objet d'un débat loolu moo tax ñu ne les Nations Unies mu mu woo France yedd ko parce que France dafa bëgg lakk Afrique parce que France dafay gérer ses intérêts géopolitiques et géostratégiques en Afrique parce que depuis le la France la preuve en est que gisoo tey jii ñun li tax ñu jaaxle parce que y des manœuvres et des mécanismes yoo xam ne ñu ngi koy mettre sur place tey c'est important ce que je suis en train de dire c'est des préoccupations pour une intervention militaire en Libye comme quoi dañu bëgg a régler la crise avec des armes comme quoi on lutte contre les passeurs déedéet on ne règle jamais une crise migratoire par des armes immigration fait sociale la kon tey nañu poser le véritable débat